Thank you. sa xol sedd na waaye sa ruux am naa yaakaar ni connecté wu na sa digganteeg sa borom ku fi toog tey am nga loo yëg dëgg la wala du dëgg ndax li muy wax mooy loo xamante ni nii nit waxul lu ko gën te mooy laa ilaha illa allah te boo déggee ni mu koy génnee ci dënnam nga xam ni ci xol lay jóge mais ci xol lay dugg Sëriñ Abdou ñu ngi lay sant bi la ñaanal yàlla yàq ñi nga àndal ñépp yal na yàlla fay la ni ngay bëggale nit ñi ci yonent bi di ko bëggale nit ñi ci yàlla di ko bëggale nit ñi ci Seex al Islaam Alxaaj Ibrahima Ñas yàlla rek am sa fay kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla taxaw la ci barke yonent bi xam naa bi ñu lu yàgg kàddu bi xam ngeen ni guddi na dañoo reer ba mu guddi léegi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi sunu wuy jur bu baax wi toog di paali Serigne Babacar Sy da daan wax naan mbooloo ndaw kese dalul sama xel man Babacar waaye mbooloowu magi kese dalul sama xel ñu ne ko lu tax mu ni ndaw xam nga jeune moom doole rek lay demee du deme xel mais mag day demee xel kon sa teewaay fii ci sunu biir dañu lay ñaanal yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla nag ñu ko toogal fii téeméeri at yu commencé tey wax leen amit yàlla mën na ko ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak sutura di nuyu bu baax nag di teg ci nuyoo bi deretu sayyiduna muhammad bi nga xamante ni nii wala ñi nga xam ni ñu ngi ci sunu biir at mu ne noonu lañ koy def di soxna Fatima Haydara wante di nuyu frère am Serigne Anta Karena ah alpha ok Cheikh akan da lañ wax kon bok anam sang bi ñu ngi ziar juram serif misbah man xam di deretu sayyiduna muhammad di nit ku di nit ku kon bu ñuy tagg di def màggal juddug Seyduna Muhammad njabootu yonent bi nekk ci sunu biir xel mu dal la na yàlla defal nu ko lépp lu doon sunu njiglaay ci barke Seyduna Muhammad ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñun lu ñu am sa maam lépp lu nit am rek sa maam Seyduna Muhammad moo tax ndax fa matxuhu ibadatun wa xubbuhu saadatun wa dikruhu ziyadatun yaa fawda xibbi zakiri kon ñu ngi lay ziyaar di la ndokkeel waaye nag di nuyu bu baax sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit soxna jaara mbàkke mi nga xam ni tey jii moom lañ fi xoole cheikhul xaddim jaan bu la màttee nga naan jaam ju góor la ak ju jigéen la dee ngay def demal nga lugg ko rek moo gën ci yow kon ñu ngi lay nuyu bu baax Mbàkke di la ziyaar di jox sa wàccuwaay di ci dëgg di ñaanal suñu waajur wa Sëriñ Mountakha mi nga xam ni kuy sénégalais rek war nga koo ñaanal yàlla guddal fi ndax ni mu njabootee sénégalais yaatal bëgg ñëpp yilif ñëpp waye nak doon cheikhul khadim kon ñu koy ñaanal yàlla yagal ko fi ci barki sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbégte jullit ñi ñépp la mom cheikh muntaha kon nak ci lañuy jaare di nuyu mboolem njabootu cheikhul khadim bi nga xamni ni ñoo toog ci biir jotay bi yakarna sopp yenen ci bi mom ku koy wax ba yexi ci cheikhul khadim yakarna da ngay ferankulay ndax ko xamni neena mbégte bi may am ci bu may tagg yonent bi mënuma koo am ci leneen bu may tagg Seyduna Muhammad ni may bëggee mënuma koo am ci leneen ñu ne ko lan mbàkke mu ne waaye loolu laa xarwa laa xarwa ñu ne ko lu tax mu ne bi ma nekkee ci biir bato bi la ma yàlla xamal ni ma yaay mbindaafu Seyduna Muhammad jaraafu sayduna muhammad yow mii yaay liggéeyal sayduna muhammad allamani rahmaanu bi safina bi annani qaadimu zilmadina kon tabaarakallahu noo tey moom gàmmu gi dina garaaw parce que tey moom tey dañoo bëgg a jël tey kooku wax na am solo bu leen ko toppandoo nag damay gërëm rek man woyaguma di nuyu bu baax laay maxtaar di ko ziyaar waaye guma de damay dañ nga xam ni moo fi toogal njabootu Seydina Limaamu yépp di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla ku baax la jàpp ci bis bi ñii mënul ñàkk ñu tudd leen jàpp ci bis bi laay maxtaar yàlla na yàlla guddal sa fan ak mu nekk nii la koy àndeek waa gàmm gi kon yàlla na yàlla taxawu leen ci barke Seydouna Muhammad di ñaanal suñu waajur wa Baye Abdoulaye Thiaw yal na yàlla yokk ay leeram ci barke Yonent bi euh, di nuyu bu baax Ndiaye Conteneur Ndiaye Conteneur koy ñaanal yàlla ndax ci bis yàlla taxaw ko ci barke Seydouna Muhammad man na xaw ma Conteneur lu ko gën a féete kaw leneen kon ma ñaanal ko ko Ndiaye na yàlla guddal fanam ci barke yonent bi yàlla taxawu ko te barke liggéeyam parce que bëri na ñu muy jàppale fii ci dëkk bi yal na yàlla taxawu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuy bàcc li di ko ziyaara di ko ñaanal ndax jàpp na ci bis bi moom tamit yal na yàlla taxawu ko ci barke yonent bi di nuy bu baax aadama ba yal na yàlla taxawu ko moom itam jàpp na ci groupe bi ci li nga xamante ni nii mooy guddi gi yal na yàlla taxaw ko ci barke Seydina Muhammad waaye du bu baax nag ñi nga xam ne ñoo doon tooyoo xol léegi di Abdou Mbaye nga xamante ni nii yaakaar naa ku fi toog rek sa xol bépp na di ko ñaanal gudd fan ak wér ak sutura du nuyu bu baax a baax nag ki nga xam ni nii mooy sunu gan yu baax ñuy toog xam ngeen ni gàmm gi yokku na Abdou Aziz rek ngeen daan gis mooy taxaw ak moo du Ndiaye ñu am fi suñuy soppe suñuy xarit yu fi ñëw muy Serigne Abdou Sène mii ànd ak frère am ah Ibrahima Sène tabarakallahu ñu leen di ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante nag di gërëm di ziyaara di ñaanal ñi nekkoon ci waar wi présidente ajaratu Binta Kan yal na yàlla taxaw la yàlla guddal sa fan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ah, defoo leen dara lu dul nekk ci waañ wi guddi ak bëccëg ba lépp sotti ba képp koo xam ne ñëw nga fii xewlu nga yal yàlla fay leen seen liggéey rafet na seen taxawaay rafet na yal na yàlla fay leen ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu nuyoo soxna Binta Kan nag nuyu nañu mboolem ku jàpp ci guddi gi waaye beral nuyoo sunu yaayu bopp tabaarakallaahu di sunu yaay mère mère Anne di ko bëgg Seyduna Muhammad di ko bëgg Cheikhu Tijaani Chérif ñu ngi koy ñaanal teewaayam bi yàgg na koo def yàlla yàlla taxaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa xam naa rek liñ ma waxoon sax ëpp na loolu mais kilifa yi dinañ ko jël bu soobee yàlla waaye di nuyu oustaz Maxet mi nga xam ne nii moo war a taxawee guddi gi ci waxtaan mook oustaz Makoura Diop ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla taxawal leen dëgëral leen ba lépp lu ñu wax tey jii ñu dégg ko waaye topp ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax walay sa nafoon ala xubbin bila amalin wa taabian sunnatal muxtaari tëxtanimi bëgg naa yonent bi waaye du tax ma jóg fajar julli kooku moom doxul kon yal na yàlla taxaw leen ci barke yonent bi du nuy Mouhamed Sarr mii toog taxaw ci sama wet tabaarakallaahu euh, borom diaspora news nii direct la ko def ngir gàmm gi ku nekk foo mën a nekk ci àddina bi di ko seetaan mu ànd ak équipe tabaarakallahu ñëw ñuy wax ni képp ku nekk ci diaspora bi da nga war a seetaan diaspora news nga xam ne sunu alal la yal na yàlla taxaw ko yàlla barkeel ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne liñ ma joxoon ci ay remerciement loolu la bu seen xel dellu si waatee ngeen bind beneen su ko defee incha allah ñu ñëw ci su ko defee xam naa ni ginnaaw dañu war a dugal rek ñi nga xamante ni nii ñooy boroom xam-xam yi dañu waxoon ñu ubbi leen man nag sama gàmm fu may ubbee nii la ma yàlla bind man xasiday Cheikhul Khadim laay jëkk a woy ngeen wala d'accord ku sopp ku sopp Cheikhul Khadim defal ñu say baaram eh na ko ñëpp àndandoo man وبي سليمان نوح ينزل يزاعي زكريا أيا يا الله الله بالمصطفى يا الله ربي يا الله شيخ وبي سليمان النوحي يونس suma ba abdu cheikh ibra fall dan nittal li janoog borom bu dey ma waaxi bu dey ku sëkk bàyyi ba sa daara defal nii say baaraam ñu ko gaa yi xibaar ñu tagg ahmadu gis boog ma waaxi mu xaddima ak ñu jox ko gaa yi ne xibaar ñu tëgg ahmadu yéen murit ku ci am ngor na di woy cheikh mbàkke ku munta way defalal ngor di way ku way cheikh mbàkke xol bi maa la ko jox teg ci doom yi ak baay jëlal ak mbokku yeeg bàjjen yi way ci saawaaw yéen murit ci na leen leer ni fee di tuuba yéen murit yi la leen leer ni fee di Tuuba loxo képp kuy texee fa ngay texee su booba yéen murit yi la leen leer kuy texe fa ngay texe su boobaa bi maa la ko jox teg ci doom yi ak baay walaay ak mbokk yi bàjjen yi ci sa waaw nee naa la Cheikhul Khadim li mu defal Seydina Mouhamad ci Sénégal moo tax nga gis nee naa la gouverneur woo Cheikhul Khadim naan ko Ahmadou dama bëgg nga ñëw wuy si ma mu ne ko yàllaa ne képp woote demal wuy ji ndax tuyaaba nga ciy am daal di ñëw taxaw moom cheikhul xadim gouverneur naan ko yow cheikhul xadim ahmadu lu tax ñu naan la garamarabu te magoo ci réew mi sëriñ bamba naan ko sëriñ bamba naan ko sëriñ bamba ko sëriñ bamba ko lu tax ñu naan la gouverneur nga te doonoo ko waaye dégg gouverneur naan cheikhul xadim gouverneur naan cheikhul xadim boo ma xamoon ding ma mooy sëriñ bamba ko sëriñ Bamba naan ko boo demee ba xam may kan ding ma moyu gouverneur naan ko xanaa xamoo ni fii ci réew mi ku fi ñàkk baat maa la ko xeeñ sëriñ Bamba naan ko bu ëllëgee ku fi am baat maa la ko jox ku sopp Cheikhul Khadim defal nii gouverneur sonn ca naan ko Modou Bamba kaay yow yaay seet fi ngay dëkkee sëñ Bamba naa leen yéenay fi may loxo ñu yóbbu ko Ndakaaru ñu yóbbu ko Ndakaaru ñu yóbbu ko Ndakaaru ñu yóbbu ko Ndakaaru Bamba jaaxal ko loxo ay waa ko ba Ndar Géej ñu ko ba Ndar Géej Bamba ko ba Wiir Wiir ñu yóbbu ko ba wiir wiir Bamba jaaxal leen ñu delloo si ko xam nga mel damay feeru sama waay xam nga may wax ñoom ñooy def man fi salaamu minni ilayka maanil amwaajul watiibu miska may wëlbati mboolem waye ñi sodaa maxaatir defaroot tii na laxu këccoor may way ki jara way moonu tuuse ay leer may dool bi ci lislaam xamal ma ko doon kon ma way la ca kañ la yaa roog rabbal dama sopp te di la way waaye raw nga sey maas lii tax ma di la way ngaa ni roog borom xaas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas lii tax ma di la way ngaa niroog borom faas bu jaamiu ñas yaa di janti jëlloo saxal nga fi ay leer teg ci bëtu yi doy waar balaa nga koy xéemloo ndoo ba aw naqar feeñ boo xoolee barxaama ñas gis lu muy mooñ balaa nga koy xéemloo ndoo ba aw naqar feeñ boo xoolee barxaama ñas gis lu muy mooñ him mu janax lu mu rëy taxul te nga bakk sa mbër lu mu rëy taxul eh, te nga bakk lu mu lu mu rëy rëy taxul mu saf saa lu mu rëy rëy taxul mu rëy rëy taxul mu saf saaf. mbërum raa lu mu rëy rëy taxul mu saf saaf. mbërum raa lu mu rëy rëy taxul mu saf saaf. mbërum raa lu mu rëy rëy taxul mu saf saaf. mbërum raa lu mu rëy rëy taxul mu saf. mbërum raa lu mu rëy rëy taxul mu saf. Aminatul bintu Wahab

لله در النزول قال مادحه جزاكم مولاه خيرا خيرا مرسلا صليا يا الهي وجزيا وجزوا عنا محمدا يا رب في الحاج مالك ودبت الامه فاقم ام تبت حلدك الإمام فأما صليا يا إلهي وجزيا أنا محمدنا لخيجيا من قولة مولو لله در الله حتى لا ماديها جزاء مولاه

Ayyar jo خبايا أنكارة كرم الأنصار لو تأتوا والسيتي سنبيس منصور تمجال الجوكر يورب يرجو

محمد دينانا تاريخ خيمة المملكة علي محمد دينانا تاريخ خيمة المملكة علي محمد لا من مان علي محمد لا من مان علي محمد أدنانا أدنانا أدنانا أدنانا لمودة يمجحا أيوة خبر دودين الله خبر إسهي ngi jural nanu toog toog nga tuddal li moom ba mukk mukk mukk si di la walin si di la si di la na la ma uto yam jaxaas ay wa xam tuddal adna na la ma uto yam jaxaas ay wa xam tuddal ay adna na la ma uto yam jaxaas ay wa xam tuddal billahi ni asku ila allah ha kan laysa yarfahu Mbacke ma ngi Abdou Mansour Habib Thiat Maodo Malick jàng bëri lool lay lay jotee mboo oh, Maodo Malick jàng bëri lool lay lay jotee mboo oh, Maodo Malick jàng bëri lool lay lay jotee mboo oh, Maodo Malick jàng bëri lool lay lay jotee mboo ate si kër la wóolu doom na ma Seexu Tijaan sama Maodo fii la rawee gaañi ba tey kenn dabu ko àdduna nag digal ñu jëm fu ngeen jëm ca maam Maodoy dawal gaalu tase gi ku ci duggul du day maam Maodoy dawal gaalu tase gi ku ci duggul du day bu mu xëyre di soppe bay bu mu xëyre di soppe bay bu mu xëyre di soppe bay mooy pendal dugum tubay moo yor waalu sëy bay espay diina jee wala rëkkaloo diina ngir ragal xalifa yëngaloo indi na ngir la nga sabaa du sabi ànd it loxo ca kaw tandar may aljanna bàyyi may am na cay tooli tool tandar may aljanna bàyyi may am na cay tooli tool tandar may aljanna bàyyi may am na cay tooli tool yomal qiyaamam falay toog dinoon si kanam rabbul tabaarak tanaag rabbul tabaarak tanaag rabbul tabaarak tanaag rabbul الليلة عندي في في في